gan gi euh, suñu doyen Mamadou Sy Albert euh, taskatu xibaar analyste politique itam doyen ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax a baax Fatou. ñu am mbégte dalal ci euh, matinalu Rewmi FM ni ñu koy amee saa su ne alors ñu tàmbali ak euh, analyser actualité bi ci euh, kàddu yi président Abdoulaye Wade yëkkati fan yi di fàttali ni moom waxoon na ni du aw ci ay néew ngir yegg pale ñu bari gis ci gaaral Ousmane Sonko ak opposition bi ñu naan radical ndax booba jàngat nga ci am. ah déedéet déedéet euh, jàngat euh, mën na nekk euh, comme ni ko waxee day fàttali moom jaar-jaaram. Hmm. mu waxoon démb. wante bu ñu méng ñu bañ a méngale li nga xam ne amoon na jamono Abdoulaye ak jamono Macky hmm. fu ñu nekk ni defe naa waa yi ak Ousmane Sonko ci tànk Abdoulaye Wade. la ñu jaar la ñuy jaar nii. Mm-hmm. ndaxte démocratie moo taxoon Ablaye Wade amul lu mu dajewul ci nguuru PS. Mm-hmm. Euh, ñii lu ñuy daj depuis dix ans. soo xoolee rek ci ex ñaari exemple euh, ñi nga xam ne dee nañu ci manifestation kot ëpp nañu fukk. Mm-hmm. ñu ngi wax na ay fukk ak ñeent xëy na sax ëpp na waxuñu blessé yi. beneen firnde bi mooy Euh, ñu arrêté ñi nga xam ne cinq cent personnes ci manifestation loolu peut-être soixante-huit la amoon donc loolu li muy firnde mooy que suñu démocratie demul euh, am na problème suñu fonction démocratie nu muy doxee baaxul. Hmm. kon loola waroon na koo wax moom tam. mais Abdoulaye Wade tey jii ku wax waxu histoire Sénégal fi mu war a taxaw. Hmm. mooy ci démocratie. Hmm. lu ñu am lu ñu ñàkk. au moins Abdoulaye Wade indi na xeex na pour démocratie tey jii ñëpp muy société civile muy acteur politique muy partenaire ñëpp ñu ngi tiit parce que su kenn xamatewul euh, mënul xàmme suñu démocratie bi am hmm. am na problème liberté am na problème liberté d'expression liberté des médias et c'est la première fois aussi que ñuy gis ne que des candidats sérieux ñu tere leen bokk ci élection présidence mhm. donc loolu bu amee ci réew Abdoulaye Wade kàddum dafa war a jëmale mhm. artu président Macky Sall ne ko suñu démocratie mu ngi dellu gannaaw mhm. et puis aussi même bu dee euh, violence bi tey jii nit ñi aussi Abdoulaye Wade ak PDS waroon ñu noppi violence bi benn côté lañ ñëwee lay ñëwee mooy ci gouvernement bi yeewu askan wala PDS amul benn parti bu am doole mën a jàkkaarloo ak police wala gendarmerie wala militaire. Mm-hmm. waa APR ak Benno ñoom ñooy utiliser force de sécurité contre les adversaires loolu moom mës a am ci Sénégal Abdoulaye Wade nag defe naa daal lu ñu doon xaar ci moom mooy euh, taxawal euh, PDS taxawal euh, ñi mu àndal électeur am pour bañ li ko daloon démb dalaat ñoom Sonko ak ñeneen bu ñu jëloon sax ak beneen exemple mooy Karim hmm. que Karim Wade quand même la chef de partie la candidat la est-ce que jaadu na PDS noppi euh, ci exil euh, Karim est-ce que waruñu taxaw ñu xeex pour sénégalais yëpp jàppale leen pour Karim mën a am liberté donc ay exemple bari na. ñuy hmm. wane ne que tey jii PDS. Euh, vraiment Abdoulaye Wade fi mu waroon taxaw mooy tey ji euh, ci démocratie bi mu gën ko dëgëral. kàddoom yooyu tam ñu bari jàpp nañ ne xëy na Karim lay xàllal yoon ndax buy ŋàññ euh, Ousmane sonkook euh, geneen opposition gi mu àndal di joxoñ xëy na seen fitna gi ñu nekkee bëgg naa wax ne itam ni muy doxee noonu la doomam na nara a ñëw doxalee gisee ko noonu. non non yaakaaruma ko. Hmm. Abdoulaye Wade. xam na ni Karim su bëggoon Karim ñëw day xeex. waaw hmm. ah, xeexuñu loolu tax exil bi continuer euh, te ñoom ñëpp xam nañ ni que Karim mënul diriger PDS fekk mu ngi ci bitim réew. Hmm. pour diriger parti il faut nga toog il faut nga mën a jokkoo nga waxtaan bon loolu euh, defe naa xëy na bokk na ci euh, xeexu Abdoulaye Wade. wante pour pour man euh, problème bi nekkul foofu problème bi mooy PDS fan la nar taxaw est-ce que parti opposition la est-ce que parti de compromission la mm-hmm. euh, loolu tant que waxuñu lu leer euh, bon kenn du xam fu ñu jëm tantôt ñu ngi ci opposition bu leen arrangé ñu def intercoalition am groupe parlementaire mm-hmm. am lu ñuy am bu xeex jotee ñu feete wetu majorité présidentielle. Hmm. loolu aussi defe naa du du du démocratie. Hmm. loolaa tax sax ñu bari jàpp ne tey PDS mënuñu ko tuddee opposition ndax euh, dafa mel ni moom mooy opposé wu ci opposition bi nekk fii est-ce que euh, loola amul lu mu mën a yàqal parti démocratique sénégalais. ah daf koy yàqal lu bari doole PDS dafa mës a nekk parti d'opposition. wala mu nekk parti euh, gu majorité présidentielle élargie mm. mais PDS mësul nekk ci wuy non soit dañuy xeex soit dañuy dem ci gouvernement mm. léegi fi ñu nekk ni nekkuñ ci pouvoir nekkuñ ci opposition mm. lu leen dal mooy loolu que que PDS kenn xàmmetul euh, fan la bokk est-ce que ci opposition bi la est-ce que ci pouvoir bi la et Sénégal yi aussi bon war nañu jàngat quand même que citoyenneté am na ci Sénégal que nit ñi dañu bugg euh, boo dekkee chef de parti wala nga nekk parti mhm. nga wax li nga xam ne xel mën na ko nangu mhm. nga bokk ci opposition ñu xam ñu ràññee la ci opposition wala nga dem ci nguur ñu ràññee la ci nguur. Mhm. loolu waaw loolu mooy problème PDS. loolu problème PDS léegi ëllëgu PDS noo ko gisee gannaaw problème yi nga leen limal yépp bokk ci Karim Wade mi taw a ñibbisi euh, parti bi itam xëy na nekk ci jafe-jafe kenn xamul fu muy teg tànkam assemblée national sax ñu bari jàpp ne nguur gi la gën a jege ko opposition bi ndax ni muy doxalee euh, noo gisee ëllëgu PDS ci kaw lii lépp. non day lu PDS dina jafe parce que euh, perte na lu bari ah, perte na pouvoir bi ba tey ji Euh, doole PDS dafa wàññeeku bu baax a baax ñaareel bi mooy que PDS amul njiit ba njiit bu ñu am mooy candidat bi muy Karim te Karim mu ngi ci euh, extérieur bitim réew euh, donc pratiquement amul bopp PDS amul bopp amul njiit mais parti nag boo amul njiit te fekk aussi yow gisuñu ci gisuñu la ci xeex démocratie wala xeex pour wut pouvoir bon mënoo am confiance sénégalais soo xoolee bu baax a baax tey jii euh, PDS nekkutul en tout cas parti bu jiite ci opposition bi ñu ñuy seet ay Pastef euh, ay taxaw ak ñeneen ak ñeneen ñoom force opposition tey ji euh, PDS nekkatul hmm. vraiment comme ni ñu ko doon waxee moteur de de de l'opposition hmm. kon seen chance ci élection 2024 bi taxu ko bari noonu non taxaw ko bëri vraiment euh, dañu war a toog euh, xoolaat seen stratégie PDS amul stratégie partie bu mag la def na réorganisation président Wade jëm na indi ay euh, renouvellement des instants des personnes mais amul stratégie hmm. partie da ngay am stratégie soit damay dem réorganiser pour wut nguur ou soit damay réorganiser pour dem ci gouvernement pour defaraat il nga am option. Mm-hmm. PDS amul option bu claire et parti mënul am ñaari option. Mm-hmm. nekk ci diggante bi. non ça ça ne marche pas man mënoo doo am nguur bon en plus que confiance électeurs yi ngay ngay perte. Mm-hmm. ñu bari itam dañu jàpp ne PDS ñi ngi waxtaan ak président Macky Sall c'est légitime. ñu xalaatee noonu non wa sax peut directement. parce que. Euh, euh, Macky Sall ak président Wade dañu dañu seen gis-gis dafa wute lool lool. Hmm. donc tant que amul waxtaan dëgg-dëgg ci stratégie ci ci gouvernance nu mënuñu wax ni ñuy waxtaan. maintenant li nga xam ne lii aussi am nañu ñoom ñaar ñëpp intéret muy APR muy PDS bëgguñu keneen jël pouvoir bi deux mille vingt quatre bu bëgguñu te hmm. bu ñu xoolee tey ji Euh, ku gën a féete en tout cas jël nguur mooy yeewi mhm. muy Macky Sall muy PDS bugguñu waaye yeewi jël nguur deux mille vingt quatre mhm. def naa loolu moo tax euh, PDS buggul nekk ci opposition dëgg-dëgg pour mhm. dem alternative pour dooleel opposition bi daal pour dooleel opposition buggul aussi dem ci Macky parce que ànduñu ak Macky dañu bëgg seen candidat nekk président d'accord loolu euh, stratégie soo ko amul nag bon ce qui fait que impression en tout cas bu ñu bu ñu am. Mm-hmm. mooy que PDS day flotter. Mm-hmm. day day flotter mënoo wax ne ñu ngi ci opposition mënoo moo wax ne ñu ngi ci pouvoir bi boo gisee sax exemple bi nga joxe assemblée. Mm-hmm. tey ji PDS. xel bi mu amoon ak yeewu ba am intercoalition ñu dem ba ay am quatre vingt quatre vingt deux députés ak expérience PDS bu mu am su nekkoon ci opposition mënoon nañu jël poste président assemblée nationale bon am nañu expérience a ah, xam nañu assemblée xam nañu nguur ni mu demee ñu tekkoon ci opposition dëgg-dëgg tey jii def na président assemblée nationale ci PDS la waroon jóge mm-hmm. bon malheureusement bon seen doxalin daal euh, bennoo la ñu gën jege que yeewi mm-hmm. bennoo lañ gën a jegeek Yewwi alors ñu wax ci beneen libéral euh, Idrissa Seck tey mu war a dajeek taskatu xibaar yi gannaaw ba mu ko jëkkee dàq euh, jàpp dàq ko diggante bi itam mu poste fi mel ni kuy wax ne day doon candidat supprimer waat ko euh, lii lépp mu def ñu bari jàpp ne la muy tekki daal mooy Idi dafa bëgg a mag Macky dem samp ndëndëm ci élection présidentielle bu 2024 yaakaar nga ne tey dana wax lu leer ah bon yaakaar yaakaar naa comme ñëpp <laughs> dina wax au moins candidat la. au hmm. moins ça moom su waxul candidat la bon dina bett ñu bëri. Hmm. di mën na décevoir aussi. Hmm. bon léegi nag loolu moom ñu ngi xaar mu déclarer candidature mais lu ñu xaar ci moom du déclaration Idrissa Seck warul woon sax dem ci Macky Sall. mënoo dem élection deux mille dix neuf nga nekk deuxième nga nekk chef de euh, l'opposition nga nekk ki nga xam ne yow yaa am expérience euh, depuis deux mille ki moom mag ñu nekkoon ci géew gi yëpp mm-hmm. mais kooku yaa war a jiite opposition mais nga bàyyi opposition dem ci nguur bon euh, mënoo am confiance sénégalais yi mm-hmm. def naa loolu moo ko ko topp tey jii bu jëloon euh, en tout cas bu defoon conférence de presse. na mhm. na wax lu leer ak sénégalais yi. mo mënul mënul nekk njiit am expérience am parti ñu lay teg dëmm. Mhm. élection bu ñëw ñu la yow war kaddu. élection bu ñëw ñu la yow doo amoo kaddu. Mhm. bon loolu baaxul ci njiit il faut mu nangu wax dëgg Sénégal yi mais surtout euh, ses responsables politiques. ndaxte boo gisee Euh, bon lu des ci présidentiel motul at. Mhm. mais ni muy perdre euh, responsable euh, réew mi di dem wala même ñi nga xam ne dañu taxaw ne Macky Sall la àndal bon loolu ça veut dire que am na problème ci biir réew mi. Mhm. il faut mu nangu waxtaan ak mu waxante dëgg ak ses responsables ses militants au mhm. moins suy dem présidentiel mu yóbbaale parti am. mu bañ a dem waaye parti ba ndax lu bari desati na ci. ah bon. ñu bari déjà dañu meroon ci duggam ci biir euh, nguur gi am na ci ñoo xam ne ba tey dañoo jàpp seen bopp boole ceeg Cees gee mu ñàkk muy firndeel ni xëy na li des ci Idrissa Seck ak euh, base politique am bareetul. non am na am na am na ay militants. yi hmm. militant réew mi quand am na expérience boo xoolee ci candidat yu ñu déclaré nii ñu ci bari ci réew réew mi lañu jóge hmm. bon Idrissa aussi ku am xel ci wàllum administration. Hmm. xam na xam na bu baax a baax euh, euh, cadre ni ñu koy former former ni ñu bëri. Hmm. donc am na ba léegi ay militants expérience boobu mu ngi foofu. bon hmm. tout le problème maintenant est-ce que Idrissa Seck dina am euh, kattan ak décision pour réorganiser parti am. su su chance am mooy nekk def naa daal li may gis ci chance am mooy réew mi. su réew mi tase di du dem. mais mm-hmm. su amee parti bu dëgër mu am des militants mu am euh, euh, un langage de vérité euh, au moins au moins su su xeexee dëgg-dëgg mën na dem deuxième tour. Mm. parce que ba léegi xamuñu vraiment Macky mën na bañ a nekk candidat. Mm-hmm. Eh, Macky Sall su nekkul candidat soo xoolee leader yu nekk ci Benno Idi quand am na am na profil bu baax. Mm-hmm. Euh, donc am na lu muy jouer bon maintenant est-ce que aussi il va est-ce que bon est-ce que dina bàyyi euh, comment le jeu de yo-yo mm-hmm. su su ko bàyyee daal mën na dem mais su fekkee mu ngi ci diil euh, ba léegi. Euh, je pense que il va perdre la confiance des Sénégalais. Mm-hmm. jërëjëf doyen xam naa fi la ñu yem ci waxtaan wi waxtu wee ñu dab ñu lay gërëm bu baax a baax Mamadou Sy Albert journaliste analyste politique amoon nañu mbégte mu rëy dalal la ci matinalu Rewmi FM tey. merci Fatou kontaan naa bu baax. jërëjëf merci kontaan naa bu baax. jërëjëf merci kontaan naa.